أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما mbokki جولتي yi <clears throat> mbokki الرحمة Ar Rahma ñu ngi leen di di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi am mbégte bu baax a baax di santaat borom bi subhaanahu wa taala si xéewalam yi kon tey dañuy ñëwaat si dars bi nga xam ne moom lañ baaxoo ànd ak yéen àllarba bu jot si waxtu wi mu aju si li nga xam ne moom mooy alqiraa mooy lecture si arab ñuy sëkk sukkandiku si téere bii di muallimul qiraa Euh, kon mbokk yi ñu ngi woon di boole euh, jàngoon nañ xaraf yi yëpp jàng tamit euh, xeetu maska yi nga xam ne moom moo am gisoon nañ tamit sukun gisoon nañ tamit madda yi sadda yi yooyu yëpp jàngoon nañ ko kon ñu ngi woon di boole incha allah tamit dañuy desandi taxawandi si boole boobu incha allah moom mooy doon suñu dars tey a ah, naa ana a dau adau ana adau la hu lahu i aq di aqdi ana adaau lahu ciqdii fii raqabatihi fii raqabatihi an da ma indama asiru asiru ya أم شي يمشي خأل في خلفي عند ما أسير يمشي خلفي عند وعند ما أجلس أجلس yaqifu yaqifu ja'an bi jan bi wa indama ajlisu yaqifu bi